nga ñëw teewe ko euh, def fi conférence bu am solo ci thème boo xam ne yaakaar naa ni waxuma la euh, mag ñi sax waaye ndaw ñi sax mën nañ ci jël tey nga xam ni ñoo waaw jërëjëf maa ngi am mbégte lool ci li ngeen ma boole ci li ngeen di laaj euh, mbégte bi mu am tey mooy dama fekk sama benn employé peut-être benn frère peut-être sama benn jarbaat. fekk su ci biir bokkam mu tànn benn tomb boo xam ne bi xam naa xaw ma lisaan du xaar moo ko tànn loo xaw ko tànn loo mu ne ma kaay waxal ci ak taqwa man nag taqwa jom laa koy firee moo tax ma traité tomb bi ci angle boobu firee ko jom ni nga ko wax nag am na nun la amee mooy daa war doon loo xam ne xale yi war nañu am fréquence bu ko jàpp mag ñaam fréquence bu ko jàpp ñëpp jëriñu ci ndax la alakum te taxoon ñëpp a ko bokk jërëjëf. waaw sëy li koy tas mooy góor guñ may te liñ ko may xamu ko jigéen juñ maye te kiñ ko may xamu ko waxuma xamu ko nag ci ñu toog kenn ku ci nekk naa day jéem a xam morom ja déedéet dañu war a xam rek lan mooy sëy kii xam lan mooy jëkkër kii xam lan mooy jabar buñ xamul loolu nag. fii rek lay jëm ku dugg tuuti rek génn dem ndax muñ gi war a nekk ci kuy góor du ca nekk muñ gi war nekk ci jigéen du ca nekk te soo ko delluwaat ci tam yi bii ñu doon waxtaane tey mooy ñoom ñaar ñi bu ñu amee jom lu waaye mitre da ko mën a muñ ba sa yaay du ko yëg jërëjëf